Chef Aïda. yaay chef ci sa kër ak sa biir Chef Aïda. moom la ñëpp doon si woon wala boog tànn si bu la gis bokk ci mayonnaise chef Aïda rek ci goût qualité sécurité ak hygiène amul dendandoo ci mim réew yaay chef was it. oxygen. Money, money. chef. Aïcha muy ah, une bonne cuisine se signale à l'odeur que dégage la marmite qui bout Olof Ndiaye nee na cin su naré neex su baxee xéñ bak ba jib lu bess tak muy lan OZ Stream di plateforme bo xamné ne daf lay permettre nga mën sétane say film ban film bép produit buy daw Pikini Production notamment famille sénégalaise saison 3 bi. ak sen série bu bess boobu di nitu intérêt saison 1 kep ku ko bëgg sétane

ci plateforme boobu ñuy wax OZ Stream ak seen série nitu intérêt saison 1 ay ca daw leen gaaw. dafa bëgg àdduna àdduna bëgg ko yàlla yàtt ko taar tàkk ko benn wurus la wurusu ngalam la takkaay yi la mbarke ba daaram day tàkk góor gu ko tàkk yow dinga tàkk àdduna ne la dafa pot I'm set to do my lii de misaal la. waaw siñ la. lii day wane rek ke li ma doon wax dëgg la xëcc bu daggul dikk. Hmm, léegi nan ngay def. nan lay def si lan. damay toog xaar saa si moo mene ne naa toog xaar kay naa toog xaar rek. <laughs> Sayda mu ngi néegam toog di xaar moom itam. waaye ma say moom amul bopp maa ngi ko gis muy wax far bi di ko def siñ pour mu noppi. ñoom ñaar dee ñu nga ca biir toog ma soofee cum say nit ku baax dafay neex a waxal. lan nga bëgg a wax que man duma nit ku baax. waxee foofu de mais dama bëgg a wax ni rek. su ma la digalee war nga mën def li ma bëgg. lo nga mësa digal def naa ko mais mi day dis ci man trop. nga nek ci kër gi ak wa kër gi mo gën a dal sama xel mo gën nga nek ci appartement ak sa yaay ak sa petite sœur nga baal ma de mais duñu ay nit baax. ñi nekk ci kër gi même su fekkee ay nit ñu baax lañ chaque jour dañ may manqué respect su yàggee seen baax day suul. fii kenn manqué le respect te dafa us tamit lu ñu lay manqué le respect c'est juste kenn rek sa raq lañ jotal. ak sama yaay boole ci sama yaay ku laal sama yaay laal ma. waaye boo ñëw doo yëglu ñu xam ne yaa ngi ci yoon da eh, ngay jékki-jékki rek ne jamet dama leen bëggoon defal surprise moo tax. surprise surprise de ki ko créé lim mu créé dara baaxu ci waaye loo fi wut lan la xam naa la de. maam damaa tëdd maa ngi am luñ ma woon. te lu ñu woon dara neexuma si moo tax ma anticiper sama ñibbi si. maam yi am lu ñu la woon lan la woon. Penda Warus nekk ci ay difficulté saa si yow ma defee ne yow yooyu. gëm maay affaire sëriñ mais gëm naa ne am ñu yàlla may ay gis. xanaa yow ci nga bokk. bien sûr si la bokk. xam nga man moomu kër gi xam nooy def.

dama foog ne rek dafa japp ne amna sañ-sañ ci lepp lo mo ba ci la en plus yow nest pas yow ya doon wax ne ñi dañu war a génn kër. juguma ci de mais dama xam ne saa si mu ngi doog day teel déglu ko rek mu wax la. Hmm? Dame. yàlla lu mu dogal rek noonu la yàlla moo xam lépp ñun xamuñu dara. xam nga man mënuma la bañal dara waaye soo waxee ak sa nijaay ba pare dangay dem nga wax ak benn wurus nga wax ko mu yem. Penda dina yem te sañul def dara moom. yaa ngi gën xam sa nijaay deret gi daa tàng jër te soo tàngalee rek tàngal kon na sedd dégg nga sa xel daal sama nijaay xam naa ni may waxe ak moom mais maam bëgg naa nga xam ne Penda Wurus dama ko bëgg te dama ko bëgg jël kon soxna dangay waxtaan ak sa mu bàyyi ko fi ba pare loolu ñu doog cee wax dégg baax na merci d'accord xaaral ma gis sama nijaay maa ngi ñëw. nijaay man eh taxawal nga wax man boobu ba tey maa ngi taxaw fii di laa xaar dama fee yàgg mënoo goo gis sa nijaay. tante da nga bëri problème xaaral ma gis sama nijaay ñëw ñu waxtaanee. eh saa si xam nga lan laa bëgg ma sa morom ñëwal toog fi ma wala ñaari baat loo mën a gis ak loo mën a dégg jaaral ne. gis sama tata lilala ne xamoo lilala ne denda wurus jàpp kër gi di ko dëbb bi mu ni dugub ak suuf digg ëtt bi la doon sangoo saafara nga ne maa lilala ne mu ngi nii s'il te plaît yar doro ma yaa ko tere ne el doro taala sa doro ne ko doro moom moo ca aay mu ngokk si lan la lan mo xew. ci dara ya sa ya. si sa kanam gi ku ko gis xamne dara la sa si Wurus yaayam ta dara taxul may wax ndax sama bakkan bul deglu nak nit ñi luñ la wax jarut ta gëm sax Wurus xale bu baax la. xale bu ndayam gërëm demul dikkul deful dafa am nag ay noon noonu la ko yàlla moo ñaalee saa si man mag laa dara jaraluma ay fen damaa bëgg nga bàyyi bu baax xel ci li ma la wax envoyé woo ko ko woon. envoyé. ñu ma foog ne envoyé nga ko bu yàgg. wulaante da ngaa neex bés bu rafet laa doon xaar bés boo gis bés lay xaar te bés bi laa doon xaar envoyé naa ko neel cendeer nag Leela Fall nee na réglé na lépp waaw ndax wax naa lépp saa si. waxa na ñëw léegi wuy nijaay moom lay xaar. amul benn problème. ana Saasi. Saasi mu ngi nekk Penda Wurus. nekku Penda Wurus waaw kon Penda Wurus dafa am nekk ci kër gi en moom lan lay def foofu xanaa xamul ne maa ngi toog di ko xaar. mu ngi ñëw xam nga nee la moom du bàyyi moo ko woon vidéo bi Penda Wurus doon sangoo saafara bi ci kër gi. léegi nag. dem na àkki ji xam naa ne li nga doon xalaat du mujj am ndax Saasi moom. dina bàyyil boppam. loolu nga gis yow xalaat nga saa si bàyyil boppam. pourquoi ko gëm tamit saa si géej la te dafa am fulla. am na fulla waaye li nekk si bopp Penda Wurus nekkul ci bopp saa si. ah bon loo ci xam. léegi lan ngay jooy def sama yaakaar rek sama yaakaar dafay tas su ma defee dara sama xel rek su ma def sama xel daf may rëcc dis-moi yow lan moo tax nga ngay sangoo saafara si diggu ëtt bi c'est quoi problème quest ak sama diggante ak yow xam nga man dama laa bëgg bëgguma dara yàgg sama diggante ak yow ba pare sottiwuma ko si yaramu kenn sama yaram laa ko sotti est-ce que loolu dafa am problème su fekkee danga ma bëgg a bàyyi ngay wut prétexte bàyyi naa la ak yàlla allo. ci dara. lii loolu. ci néeg bi sànq ba tey ak muus. kon moo koy réglé saa si waroon dem wax ak nijaayam muy wax ak wurus ça veut dire jaar na fa. te vu que jaar na fa wurus dina perte dix perte lestek yow na danga dëkk ak sa raq te xamoo ay capacité ni nga saa si mii ma gis wurus benn gont la koy def lan moo tax nga wax loolu saa si mii ma gis du ngaaka de jegewul sax ngaaka te gis nga wurus mi xel seytaane la yor layal si bàyyil sa jooy dégg man comprendre naa la bu baax te xam naa tax nga def lii yëpp te pour sama tonton la sa xel dara man loolu dinaa ko gérer sama problème la man et jàppal ne comme te ñëw naa fii nii amul kenn ku la mën a teg nakam ba pare fii Sénégal kan moo fi dul sangoo saafara amul kenn ku ñëmé yëkëti loxo né man musuma tuuroo saafara donc arrêté sa joy jooy ase jógal kaay seetlu dinaa ñëmé après ne te fais pas souffrir kaay dem si toilette nga seetlu s'il te plaît jógal Ndéla Fall yow lan la. yaay an saasi saasi lu mu la wax. saasi lan la ma wax ci lan. <laughs> dafa nekkoon ci suuf doon wax ak Penda Wurus wax ji yàgg lool mu nekkoon fii ci yow moo tax ma laaj la lu la saasi wax. saasi lan lay def ci suuf ma defe ne mi ngi ci néeg ndijaayam di wax ak moom. saasi man maa ko woon Penda Wurus vidéo bi mu doon sangoo saafara ci digg ëtt bi. yow Ndéla Fall Ndéla ana maandu lu tax maandu woo. yaay ana maandu diggante saa si ak Ndéla Fall nga ne ana maandu sama doom la te dama koy protéger du yomb de yàlla moo tax du yomb damaa xam ne saa si dafa nopp te gis nga xale bu góor su nobee ngay koy jéem a yàqal ki mu nopp da gën a nopp waaw kii sama yaay la yaay nobel kañ la fi commencé dangay dem. dafa ma dëkk dafa ma dem wax ak sama doom. tënkee duma yàgg maa ngi ñëwaat léegi. naxam. nax non tënkee duma la ma sa nax. ñu changé wu de dañu war a génn man ak yow changé air. xaaral dama préparé wu. teelul xaaral tuuti. waaw si su demee wax ak sa nijaay mu ne duma toog si kër gi dem. maa ko ko këram ànd ak ñu dem dëkk feneen. see ماما ناسا nasa خير دال دين ناسا خير دال وقت انا benn ايه تنكت xam nga ni man sama man sama xarit la te duma bañal dara sama nijaay sax tamit xam naa ni problème yee bëri ci bopp bi rek mais tenket dinaa gérer lépp jàmm amaat ci kër gi d'accord waaw waaye saa si xam nga borom kër rek kenn du xëccoo moom këram te néew doole ñu moo tax tamit ñu dëkk ci biir këram waaye du leneen man nag bi ma la gisee ba tey dama laa bëggal sama bopp wóolu la nag <laughs> te it su ma sañoon yow doon sama goro <laughs> bis boo takkee penda wurus sama xol dina sedd torop yàlla baax na te it xel dina daan lool <laughs> na sa daal de nga bëgg rek mooy am mama incha allah xam ci kaw <laughs> kii saase kii maa fàtte woon téléphone bi ma la waxoon <laughs> non fàtte woo ma ko mi ngi ci kaw <laughs> su may wàccee pare naa la ko àndal waaw d'accord waaw merci waay dafa suñu affaire mu ngi bëgg a baax de. si lan xam ne saa si bu waxee maamam wax ak nijaayam ba mu bàyyi ñu ci kër gi lekk wàccuñu fay courant wàccuñu xanaa gisoo temps yi nu ñu amee tey mbéel li ci climatiseur yi ñuy fanaan. waaw mais loolu tax teg loxo ca Ndella moo ma fi indi. te yaay est-ce que su gënee dugg ci jarbaat bi ca duma seexlu ah waxoon naa la ko de te ba ma la ko waxee lan nga ma tontu woon lan laa la waxoon <laughs> eh, yow yaa ma ne ca buy dugg ci man du ko tay day dof ci man bul fàtte ne dof xelam du teey de wax nga dëgg waaye sama sëriñ bi il faut ma changer ko ndaxte tus xamu ko waaye bu la anta looy toog jaaxle bi lan moo xew dara damay xaar looy xaar candee la ak sansi laa may ñuy waxtaan ba saase dina bay pende Wurus sumu dem. yaakaaruma ko de. lan mooy yaakaaruma ko. ndax bu non lool la seen waxtaan bi do yàggee nii. bu antab mo wax lool saa si wax yeb a video bi mako wat ngane man gëw ma yow est-ce que mas nga bëgg dëkk. lu nga laaj ma lool amna ñoo yenn saa yi dañuy foog ne dañoo bëgg fekk na dañuy bëggantu rek gis nga bëgg dëgg day dof gumba tëx lu te saa si mi ma gis dafa nobe de <laughs> lay àddina yaa mën a bégal sa boppa nobe gaaw bëggante gaaw salaamaaleykum maaleykum salaam dafa nobe <laughs> saa si balaa noppi ndawus du yegg xam nga ni ñenti bët yu dajé mën na taal mbeugël budul fay ba faaw xal bi dama ko bëgg dama ko bëgg jël comme sax dama bëgg diw de kenn mënu ci dara ay conseil bi ma lay jox mooy jigéen laata nga dugg ci mom war nga jël tuuti temps xam mom moy kat kër gi nag moom maay lu ma neex moo fi am te lu ma neexul du fi am. dégg naa la mais Tonso mosuma bëgg loo bëggul mosuma bëgg loo ma joxul may ma xale bi des ci kër gi. baax na dégg naa la dinaa leen bàyyi ñu toog fi tey bu subaa réfléchir. waaw suba dinaa fi ñëwaat te bu jaree dinaa wax toos sam dafa teel a génn àdduna nga téye ma téye sama yaay sama yaay gaaw ñu fekk sam nga jël ma def ma comme doom musuma jooy papa musuma jooy yaay xale bi nag dama ko bëgg donc may ma li ma ñaan xoolal si man la nga may ma ko yow ya, ak ah, Penda xam naa am na lu dox seen diggante mais xoolal ci man. baax na dégg naa li nga oh. wax suba yàggatul dinañ ci waxat inshallah. allah. mais nag amoon naa la. maa la raw. <laughs> non. xam nga mu nekk nii lan laa nam ce que xam nga ni bi nga demee ba léegi seetaan ma làmb sérieux je te jure ak làmb yu neex yu fi jot am nii yow xam nga sama waa sax neex suñu xasee ànd ba dugg ci làmb bu gisee microcentral jàmmam jeex demeewul ni ko foogee de. déedéet li ma saa si wax moom mënuma ci teg baat. léegi nag. nee na ma dafa bëgg xale bi te nag nit ku nekk yaa moom soxal yow yaa xam ki nga ci dugal. léegi naa de. jëlaguma benn décision dama ne naa ci waxtaan ak ñi ma war waxtaanal ba pare. yow lan mooy sax la. man su fekkee dañoo bëggante man dama dugg si diggante ñaar ñu tante waaye penn wurus moom dafa ëpp il faut que ñu arrêté ko damel bëgguma koy teg bët sama jëkkër. <laughs> yow moom da ngaa neex yow ki di wax waxu sëy ak saasi ngay wax ay teg bët sa jëkkër. lu si xam xale yu jigéen ñi li ñu capable duñ ko wax doo ko mës xam. وياك لا لا wax la la wax si lan dañuy toog wala dañuy dem nee na nañ toog ba suba dina ma jóg wala ak nijaayam te sérieusement da ngaa nopp saa si mi waaw léegi lan ngay rek yow temps yële waxoo woon cendee la nga nopp wala sa xol bi day doxu say ko amul yaay nampo mam. Tenga gena da mai preparo da mai gena sasi. Tata, wima, yau ak ah, sama ya yana bau kundai ak ah, bai. Tumar kam na sama jamang mo bugal. Mena ngwar kam ne kam ne ko tumakale. te xam naa lu ma bëgg tamit xam naa fu ma jëm hmm? dans la vie gis am na ay défaut muy man muy yow ba pare yow ay défaut Penda rek nga ma wax waxuma ay qualité Penda nag ay défaut man dinaa ko gérer dinaa ko changer man lool sama rôle la dégg nga man maa jàppale ci loolu. saa nag yaa wooy xale te màggagoo mais saa si yow nit nga kii da kaa mën a ki nga xam ne naxaate rek la nekkee ci dëkk bi. sasi si li ma la wax danga koy dégg. tata ñi ma doon nax da leen bëggul woon mais man Penda daf ma bëgg. yow saa lan mo la xamal ne benn wu sëf la bëgg. mais tata dama ko sentir. sentir. muy dëgg sasi la. oui ma tata fi ko gis ko ne am na vie privée dama lay ñaan sa tek vie privée eh fi, amul ay bir privé man duma tubab, sénégalais la. kër gi bir privé amu fi Ta lima la wax sasi si ko dégg Ya ngi dégg Papa, baax na man damaa war a génn suba dinañ ci waxtaan Ya sama xarit saa si ma may wax ko Waye lima la wax di nga dégg par force dafa bëgg àdduna àdduna ngoro gi de du ma ci bañ dara du fi am tey du fi am suba <laughs> maam Ngoné laay jël ngemb xeex moom ba mu neex lu ma yoon may ma jël na ngoro gi tas tas tasar lay def par force

kii say saa si saa si gis naa ko mu dugg xay am na si ishara ko ne xam naa ne xamante yéen dama la ko waxul woon am ngoone kii mooy pend c'est ma petite amie loolu Kenya, unaweza come to my ci gis bokk ci mayonnaise chef Aïda rek ci goût qualité sécurité ak hygiène amul dendandoo ci mim réew yaay chef